alamin di sant sama ñaari wayjur ñi nga xam ne ñi ñoo ma dugal ci mbooloo mi sant naa leen bu baax a baax ñoom ñi ma dugal ci mbooloo mi ñoo ma tax a bokk ci mbooloo mi parce que damaa judd fekk leen ci biir donc loolu tam dama koy sant bu baax a baax a baax léegi di am mbégte rek ci màggal gi ba ko ba mag ñi ñaani jee ba léegi màggal gi mosuñu cee wàcc chaque jour rek chaque année rek muy gën a neex chaque année muy gën a neex bu ñu xalaatee ne màggal gi dina xaw a sooxee booba gën a neex donc ñu ciy sant yàlla rek yàllaa ñu ciy jàppale nag ak sëriñ bi ñu koy defal ak soxna soxna Fatma mi moom màggal gi donc may sant nag képp koo xam ne kii rek ñëw nga ci màggal gi maa ngi leen di sant bu baax dañuy ñëw ba pare booleeg di jëf dañuy ñëw ba pare booleeg di jëf ci màggal gi donc yal na leen yàlla fay sëriñ bi fay leen soxna Fatma mi moom màggal gi fay leen yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def. di sant nag mbooloom euh, section Thiès bi itam maa ngi leen di sant bu baax muy village adulte di femme di jeune maa ngi leen di parce que bu màggal gi jub see moom amatuñ benn ite na màggal gi ñëw rek na màggal gi dox na màggal gi jub na màggal gi antal lool loolu mooy seen seen itte ba baa màggal gi passé donc ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant nag waa organisation yi nga xam ne ñoo nekk ca taal yale togg dafa metti trop togg lu metti la ñu nekk di sël-sëli foofa ca taal dañ leen di sant bu baax a baax a baax di leen di leen ñaanal yàlla lu ñu mën ren yàlla bu déwee ne ñu won ko di sant yeneen commission communication yi nga xam ne ku jot ci màggal gi ñoo la ci jotale képp ku jot ci màggal gi rek communication moo tax nga jot ci donc ñu ngi leen di sant ñoom itam seen liggéey rafet na trop di liggéey di di sant waa culture xam-xam ne moom loo boobu moom mooy mooy noyau màggal gi daal culture moom mooy mooy xolu màggal gi parce que loolu rek lañ mooy tax ñu moog ñoom ñoom màggal gi yëpp bu yemoon ci ñoom rek ñu xam ne màggal nañ parce que ñoom ñoo yore njàngum alxuraan mi di jàng alxuraan di ñaanal soxna si buñ ci jógee nekk di durus xasaay di di durus di di jàng jàng yi daal. donc waa culture moom kenn amul seen pay moom culture moom yal na leen yàlla lafal cet waaw yal na leen yàlla lafal cet ah di sant waa social aussi parce que social aussi bi màggal bi teroo ba léegi ñoom itam ñu ngi ñu ngi góorgóorlu li ñu man ñu ngi góorgóorlu du du du li ma ko jiite moo koy tax ma koy wax nag mais damaa gis parce que bu nekkoon man dong social du dem fen mais nit ñi jàpp ñi ci jàpp ñoo ñoo soreel social. parce que set setal nañ fii ci màggal avant ñu màggal fii waa santé ci suba ba tey ñu nga ñu nga fee di faj ku am bopp bu métti sax nga dem ñu xool la setal la sa tension setal la sa température jox la garab donc vraiment ñu ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen di sant waa social bu baax a baax a baax a baax ah, donc. Euh, defe daal ñoo ñoo ŋànk màggal gi commission yooyu ñoo ŋànk màggal gi sant nañ leen bu baax seen liggéey rafet na lépp lu ñu def ren bu déwénee yal nañ def lu ko ëpp te lépp lu ñu def ci màggal gii bu déwénee yal nañ yal nañ def lu ko ëpp ñu sant nag sëñ Moussa Mbacke duma ko fàtte wax dëgg yàlla sëñ Moussa mbàkke moom buñ ci màggal gi moo màggal màggal gi di ko sant bu baax di sant waa kër sëñ Baye Cheikh Gueye Ponkal ñoom itam ñu ngi ci màggal gi dañoo moom màggal gi waa kër Baay euh, Cheikh Lay parce que ñoom itam seen loxo dugg na ci la màggal gi bu baax a baax a baax sant nañ daal ñu ngi sant bu baax a baax. ok jërëjëf mbokk yi ñu ngi ci euh, soxna yi sunu yaay booy yi nga xam ne ñoo ànd ak euh, wilaya femme ñu ngi nii taaru dégg ngeen léegi kàddu yi sunu yaay Khady Sall ñu ngi nii ak sunu yaay Racky Thiam ñu bàyyi ko mu nuyoo wax yëg-yëgam ci màggal bi yaay Racky ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. ah sunu mbokki taalibe yi wilaaya yi soxna Rakki Caam mooy nuyoo tabaarkalla ñu sant borom bi bu baax sax santaat Cheikh Moustapha Karim fa tabaarkalla macha allah ci sunu cinquante sixième édition wu màggalu soxna Fatma jóob gi man nag dama cee gën a bég man mi soxna Fatma dëkk kokki ma dëkk kokki Amadou ma xureeja di maamam tabaarkalla ma dëkk kokki dama cee gën a bég tabaarkalla may waxe ci pàccu soxna yi di wax ni màggal gi ala daw me na am na solo lool at mu jot màggal gi gën a neex at mu jot màggal gi gën a maaraxe at mu jot màggal gi gën a yàqu waaye nanu gën a yokku nanu gën a góor góorlu nun surtout soxna yi ku xam jigéen xam ne tubaarkàlla macha allah sunu tenue yi ni sol di baxa bi ak palmaan bi sunu sigle la mais sunu ndam la nanu jéem a góor góorgóorlu nun jigéen yi daggaat waar wi bu baax jàppaat ci liggéey bi bu baax kenn mënunu nun jigéen kenn mënunu nanu góorgóorlu ci waar wi ni ngi sant cellule yëpp social tubaarkàlla bi ma nekk soxna Xadi Sall mii di sama jawrin dugal ma ci biir fa tubaarkàlla ma nekk ci biir social ma di ko ci ñaanal yàlla di ko ci sant waa ngi ñu ngi sant euh, cellule yëpp ci liggéey bi fa tubaarkàlla macha allah liggéey bi am na solo ñuy sant tout tànk yi ndax suñu ko nag ñoom nun mag ñi du baax ci ñun waaye tout tànk yi muy góor muy jigéen ñu ngi nuy doxal soxla yi dinu doxal liggéey bi surtout waa waañ wa tabaarakallaa togg dafa metti waañ dafa tàng dafa diis fa tabaarakallaa macha allah ñu ngi sant waa waañ wi bu baax ñu ngi leen di ñaanal yàlla di ñaanal góor yàlla yëpp di ñaanal sunu jëwrin Cheikh Moustapha di ñaawal sunu jëwrin bu jigéen soxna Adja Khady yàlla na fi yàgg di ñaanal sama jëwrin man ci sama daayira di soxna Fat Sey tabaarakallaa yàlla nañu yàlla dolli jàmm dolli nu may ñu wér ak wérle yeggale liggéey bi sëñ tubaa rek la ñu bëgg a liggéeyal sëñ tubaa rek la ñuy liggéeyal yal nañ ko yàlla yeggale te may nu kàttan may nu wér defal nu jàmm nu def ko ay déwéni déwéni déwén yu bare nee nu toogee def édition bi yal nañ ko def déwén yu bare bare bare jazaakumullaahu xayran jazaakumullaahu xayran jërëjëf jërëjëf sunu yaay rek ci am kàddu yi am na solo ah, macha allah ñu ñaanal leen bu baax sunu borom gën a guddal seen fan te wéral leen barke sëñ Touba jërëjëf باسمك الوحيد والمجيد وهو المطر ولنا من السحابة يقول بأينا من غرق دمك سلي وسلم يا خليل على سراجك المنير وهو النسير والنسير لقلب من يقول دمك ساك رسول الله بسم الله سقاوة إلى سواي تسير ولسواي يسوق من البرايا كلما يسوق لي في أبد أن أسلم Lord, إلى وقد أدايا أدى Amin. Thank you.

سيدنا كم كفاية Because

ok mbokk yi jërë ngeen jëf euh, ñu ngi ci ci cëppaandawlu liggéey bi gis ngeen image yi su subaak léegi Euh, ñu nekk ci màggalu Soxna Fatma 56e euh, édition bi euh, ànd ko woon ak RTT TV gis ngeen bi ñu xëyee won nañ leen image ci commission culture ni ñu ubbee màggal gi ci njàngum alxuraan ak xasida waaye gis ngeen délégation yi nga xam ne bàyyi ko nañu fu nekk ci àdduna bi ñëw ànd ak section Thiès ci li nga xam ne mooy màggalu Soxna Fatma waaye gis ngeen mbokki dëkk biit ñëw nañu ànd ak ñoom bu ngeen xoolee cérémonie bi kenn desul macha allah taxawaay yi am na solo lool waaye Euh, kenn du Cheikh Moustapha Al Karim waaye kenn du Soxna Faat bi mi nga xam ne moom lañ doon wooteel bis bi euh, ñu ngi ci cëppaandaw liggéey bi bu nga gisee ki ñu taxawal di seen Cheikh euh, moom it bokk ci kilifa yi nga xam ne ñooy saytu liggéeyam waaye woy juróom yoroon liggéey bi di bàyyi Cheikh Gueye ponkal pour ñu gën ko xam ci ponkalum seeni Cheikh moom la ñu taxawal nii bu ko defee rek moom it ñu jox ko kàddu mu wax li nga xam ne tey yëg na ko ci bisub màggal gi waaye ñaax nit ñi soññu leen ba déwén ak jàmm incha waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu waa waa RTT eh, di sant bu baax yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax eh, loo xam ne ni say bàyyi ko def ah say ndey nga dem ba tey di ko def alhamdulilahi rabbil alamin waaye suñu xaadim eh, bis bii dama daan fekkee ndax yàlla dafa def ba ma juddoo laa xamee daayira mu fekk sunu waajur yi daan si fal di si foll si bis bii sunu waajur fal nañ si foll nañ si am na am na sax peut-être ay ay mbir la euh, du luy wax télé mais man fekk naa ñu fal si fole si si bis bii bis bi nag euh, Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé ma la koy defal waajuram bu jigéen muy soxna Fatma Diop xam ne ni Serigne Touba ku tedd ga moo ko tànnoon indi ko kër Serigne Mourou Moussa kon donc euh, moom lay màggalal ndax daanaka soo dee Euh, soxna jaar rek moom moom nga si teg ndax moom euh, tey màggal tey gi mooy euh, juróom fukk ak juróom benn benneel yoon kon nga xam ne du tey waaw suñuy bàyyi ñu waxaan dafa tey ko di sant baax na ndax di wax ne suñu bàyyi dañoo dimbali waaye Serigne Cheikh aussi moo nu dimbali ndax bi ñu leen joxee bis bi lam sa waxoon lépp duñu gis nañ ko tey wax dëgg yàlla sama xol dafa sedd lool am na jamono bi sëñ Mor Masamba di jàng ba may wër damaa tuur xéewal sax ndax xam naa ne nit xool nu ma mais sama bàyyi la ñuy xool ndax euh, xool nu ma xam naa ne nit ñi may xool maa ngi su may xool mais xam naa ne xool nu ma sama la ñuy xool gis nañu ngay yëngatu yëngatu bu am solo waaw waaw ndax loolu sama bàyyi boo xam def ndax Serigne Cheikh Mbacke bi mu fi njëkkee ñëw si màggal gi la euh, sama bàyyi commencé woon def noonu ak moom euh, ba tey góor gi mu faatu ba muy faatu am na téeméer at ak juróom-benn te ba muy am téeméer at ak juróom-benn yooyu màggal googu joxe na si nag ak juróom fukki junni Euh, muy magal gi ne woon le le 2 mars moom mu faatu le mars kon donc xam na ni kon donc loolu rek moo ko ñoroon kon donc ñun suñu demee tey suñu borom dimbal na ba ñëw di ko taxaw dañuy sant yàlla bu baax di si soñ ñëpp nag di wax ni képp koo xamante ni su borom euh, boole na la nga nekk si mbooloo mi wala nga dëkk Thiès wala nga nekk ak foo mën nekk bis bi su jotatee soo ko yëgee sa dërëm na nga ko si def waa na ko si def sa dërëm yàlla xam na ni day euh, jox ko dénk ko bu dénk te soo si defee sa dërëm te sa bis bi rek tax te déwén jot te amul ëpp loolu kon da nga xoolaat sa bopp bu ñu ñun wax dëgg yàlla ñu gis nañ si dara moom man ne war na mën sax année li ma si def su déwénee naa def lu ko ëpp waaw di ñaan suñu borom nag ñëpp nag ñëw si jàpp si waaw di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp tubaarkàl la sant nan baax di sant yéen di seen taxawaay ndax euh, du tey rek ngeen fi nekk depuis euh, bii def déclaration ba tey yéen ànd ak ñun wax yàlla lépp lu laaj si tele ki rek ngeen taxaw ko donc di leen ñaanal yow suñ yaay suñ bunt si ñoom yow suñ xaadim ñu lay ñaanal di sant di wax suñu borom euh, xéwal bu fi am rek yàlla nga ko bokk yow ak seen waa télé bi yëpp ba télé bi bokk si télé yi ñëpp di di déglu barke borom Touba jërëjëf suñu xol sedd na lool. jërëjëf jërëjëf sëñ Cheikh euh, kaddu yi jot na matale na am na solo macha allah ci ni mu ko waxee rek ñu fay fàttaliku wéy juróomu tedd woowu di bàyyi Cheikh Gueye ponkal euh, ponkalum Serigne Cheikh dégg nga kaddu yi mu seede ci moom waaye yëngatu bi nga xam ne moom la doon yëngatu gis ngeen ko ci image yi waaye macha allah ci wéy juróom moo la ko la ko royee lii rek moo am solo topp say tànk wéy tànk mag ñi lu mat a bàyyi xel la kon ndaw ñi nañ a baax kon euh, loo xam ne def nañ ko fi rek yàlla na dëppoo ngërëmal sëñ Touba euh, ku ko defee rek ñu gërëm leen sant leen bu baax gërëm section bi yëpp ci njiital sëñ Moustapha Dieye ak mbooleem koo xam ne membre nga nekk te nekk ci euh, daayira section Thiès ñu jaajëfal la bu baax image yaa ngi noonu jox leen rendez-vous rek déwén yàlla nañ ko yàlla fekk ak jàmm mbooleem ku fi teewoon wala nga amoon yéene teew fi yàlla yàlla faj seen aajo te barkeel liggéey bi nangu lépp te yàlla gërëm liggéey bi ndax liggéey bi liggéey bu mag ña la ko yàlla gërëm te may ñu fekk ko yu bari kon maam alaaji lañ àndaloon ci caméra bi macha allah ñu ko la xëy si ñëw ànd ak ñun ba waxtu yi benn yoon bu mu sonne wala bu mu tàyyi lépp lu fi xew na ko ñu jaajëfal ko bu baax ñaanal ko sunu borom defal ko ay tawféex yu yaatoo yaatu ah, ki ngeen àndaloon ci kàddu gi mooy seen mbokk Xaadim Soumaré ñu ngi gërëm mbooleem waa RTT TV yëpp ah, ci njiit li président Mamadou Seck di ko jaajëfal bu baax baax ci yombal gi nga xam ne yombalal nañ ko ci liggéey bi euh, kon mbokk yi